ñu ni nee naa ñoo bokk ñu ni nee naa ñu yaatal géew bi ñu ni nee naa ñu ni nee naa ñu ni nee naa ñu yaatal géew bi ah ñu ni nee wuute yi duñu seetaan ma amati nu ñu mbégte ñëw ak tey ci émission géew gi xam comme ni nga xamee dimanche bu nekk ci waxtu wi dafa am lu ñuy wax benn identité remarquable ma xam ne ñu koy invité mu nekk nga xam ni xam-xamam dafa màcc si benn domaine tey nag suñu invité euh, c'est un euh, leader politique Euh, bu am euh, jaar-jaar bu am solo ci ci réew mi yore aussi benn parti bu ñuy wax parti historique muy le PIT su ma ko waxee ngeen xam nu tey suñu invité mooy euh, le secrétaire général du PIT monsieur Samba si di ancien ministre du travail sous le gouvernement de de du président Macky Sall suñ ko invité tey nag war ngeen xam ni effectivement li tax ñu def loolu mooy que ni gis ngeen xew-xew yu bari yu am ci réew mi fan yi ak euh, li ñuy wax aussi les partie de gauche euh, regroupement bu ñuy def bi pour mën a euh, gën a soqali seen i mëbët ci ci réew mi xeexoo yi nag yu am ci réew mi fan yi bari na te xam ngeen ne également ñoom am nañ si gis-gis am nañ si également lecture bu tubaab di wax bu ñu am ci mbir moomu. Euh, ci question yooyu entre autres daañ ko ci posé daañ ko posé question ay aussi ay question sur réew mi ni muy doxee situation économique bi situation sociale bi waaye loolu yëpp balaa mu ñu koy def duñ koy bàyyi moom euh, monsieur Samba si di secrétaire général bu PIT di ancien ministre mu nuyoog suñu mbokk téléspectateurs ak suñu mbokk auditeurs yi balaa ñu tàmbali ci waxtaan bi amoon na ñu mbégte euh, professeur nuyu la et puis di la wax dalal ak maa ngi lay gërëm di la sant mustafa di tàmbali sant suñu borom. julli ci sangu sang yi euh, ñu ngi ci benn bës boo xam ne bés bu particulier la ndax euh, guddi gi ñu dëgmal mm-hmm. guddi ngeneen la euh, ñu ngi ci tàllal suñu loxo di ñaan jàmm suñu réew di ko ñaanal suñu askan mm-hmm. di ko ñaanal ñëpp ñi nekk si dundu yaa bi mm-hmm. nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy di ñu seetaan Euh, yaakaar ne waxtaan wi nañ ci jëlee ngëneel. incha allah waa jërëjëf d'ailleurs ci guddi gi sax guddi tey gi laa lay euh, njëkk laaj dañu gis ni parti politique yi su amee cérémonie mel nii ay gàmmu ay màggal ainsi de suite du ñuy def ay délégation dem ci kër sëriñ si di leen ziar di leen nemmeeku PIT moom lu tax digguñu ko ci ci délégation yi. Euh, booy seet PIT doxalinam parti politique la waaye am na loo xam ne peut-être mooy di koy ràññee bu may dem di nuyu ji di ziar. aajowul jàpp na woote ñoom Moustapha ak seen i matukaay. pour ñoo ne yéeg mu gis maa ngi yooyu mu ngi mel ni rek boo génnee sarax sëñ bi. jarul ngay woote ay haut-parleur ak micro ki nga naan yaa ngi joxe sarax. dëgg defe naa def lu baax. Euh, xam ne ñu baax ñi dem fi waxtu wi ñu ci war a dem def nii sa mbokk yi di def. loolu jarul yenn forme publicité yi ah kay mm-hmm. waa PIT waa Sénégal lañu. Euh, ñu gëm nañu ñu ngi doxal seen i mbir ñoom ñu ko mëne waaye ñu ngi koy defee rek à leur ci discrétion bi nga xam ne jàpp nañ def ci war a ànd yàqu ci dara. dëgg la du ñuy des ci PIT euh, da nga nekk secrétaire général parti bi mu ko waxee léegi partie bi nga xam ne lu ñuy wax la héritage bi a nekk lu lu diis parce que suñu xoolee ñi fi jaar ñëpp Amath Dansokho professeur Thiam ak yeneen ñoom seen parti euh, ñoom ñu yore parti bi doxal ko ñu egg si ba fii tey. est-ce que héritage boobu nga nga nga nga am ci PIT nekkul la nga xam ni euh, euh, dana gis na gisaay ba nga xam ni pour yore ko dana dana dana dana yomb. nga xam nga laaj boobu nag mu ngi nga laaj ko yeneen i militant boo waaj ne waa ji xam ne moom moo jàkkaarloog seetu bi na xool li ko seetu bi di woon ba pare mu wax li mu ci xalaat ñaare mën la bédee mhm. mais bédee bi du ñaaw bédee lu ci bari da naan ah moo ne day mhm. xaw naa jekk est-ce que ndono bi ñoo ko téye li ñu mën a yéene bi ne mu ngi fi. Euh, jëf ji mu ngi fii euh, jamono nag soppeeku na maanaam liñ réalité yi ñu doon dund boobu temps bi nga xam ne Seydou Cissokho moo jiite boobu temps bi nga xam ne Amath Dansokho moo jiite ànd ak euh, Maguette Thiam boobu temps ñoom Samba Diouldé ñoom Sémou Pathé Gueye bi nga xam ne Maguette moo jiite yooyu ak temps bi nga xam ne Samba moo ko yor depuis 2016 ay waxtu yu xaw a wute la ba tax na doo boo jéemee rek gis ku nekk ci keneen ka mhm. mën na am sa sa ràññee day xaw a euh, mhm. des li ci des nag mooy ñooñu nga tudd yëpp yàlla baax nañu en tout cas am na ci ñoo xam ne ay cuuc lañu woon seen kanam mhm. ñu xaw a màgg seen kanam ànd ak ñoom defandoo dara ba tax na suñuy parti euh, dina am ko jiite mais du ki jiite kii moom la ñuy sëf yëpp mooy def lépp déedéet euh, maanaam collectif la ñu rek dañuy jéem en tout cas ñu ngi jéem a taxaw te jàpp naa ne am na loo xam ne jot nañ ko def est-ce que doy na ma la doyul na wax dëgg yàlla loolu ñi nga xam ne ñooy seetaan mala ñi ci bokk ñeneen ñoo ci gën a yeyoo pour wax ko waa justement si parti de gauche toujours duñ ci duñ ciy des euh, gis nañu ni euh, à l'époque suñ koy wax parti de gauche souvent c'était des partis yi nga xam ne ay parti yu amoon doole la am taxawaay am gëdd ci ci réew mi ba pare ku nekk da nga demal sa bopp su naan gis par exemple le PIT ngay dirigé tey ànd jëf à LDMPT ak côté euh, ñoom duñ doon euh, def ay activité politiques di ñaax nit ñi di sensibiliser nit ñi mais dafa mel ne loolu dafa manqué actuellement ci parti de gauche yi est que gis am nga am nga gis-gis boobu. Euh, may li nga ne dafa mel ni loolu. dafa manqué maanaam au moins jox nga sa bopp benn distance tuuti ci laaj bi nga ne mm. est-ce nu ngi doxale nu ñu doon doxale mm. maa ngi lay wax ne lu nekk tam ci waxtoom ak contexte bi wax dëgg yàlla fi mu nekk nii ñu ci beneen fànn àddina. Euh, léegi balaa ngaa pare wax sax li nga wax yóbbu nañ ko fu nekk xarala lay moo ko indi mel mm-hmm. loon noonu boobu temps mm-hmm. ba tax na foog ci sa fànnu intervention mm-hmm. nga varier est-ce que nag ñu ngi jéem a yeete est-ce que nag ñu ngi dox di dem est-ce que ñu ngi jéem a tàggat liggéeykat yi ah kay ñoo ngi koy jéem a def waaye forme ak fànn yi nga xam ne moom lañ ko doon defee mënoon nañ ko continuer wéyale noonu ndax jamono ji dafa soppeeku euh, te quant nag ku nekk demal sa bopp booy parti bu mel ni PIT partie bu mel ni ànd jëf partie bu mel ni LD yàgg nañu jéem quand même d'abord ñoom seen bopp lu ñu wute wute joxante loxo joxante loxo boobu tam rabbo ak ñeneen booy seet alternance bi fi njëkk am euh, dama manière historique bu 2000 bi wax dëgg yàlla ñu ngi ko defandoo ak warti pas parti démocratique euh, sénégalais PDS boobu bi mu koy def mook pôle de gauche ñoo àndoon mbir moomu am du ma la nettali nag lii mujjee xew. loolu lépp defe naa ne ñu ngi ciy jéem a suñu wàll bu baax a baax. justement surtout surtout les partis de gauche gis nañu ni euh, fan fan yële ci ginnaaw wala semaine yële ci ginnaaw les partis de gauche jéem nañu regroupé wu pour jéem a xool nan la ñuy euh, yore réew mi ak ban seen joxee seen xalaat ak seen gis-gis ci doxalin doxalin réew mi est-ce que seen gis-gis boobu dafay dem ba nga xam ne da ngeen di dem euh, jéem a transformé waat seen partie def ko benn benn kuréel rek. waaw mm, PIT ànd ak LD ànd ak AJ authentique ànd ak UDF mbooloo mi ànd ak RTAS ak yeneen i parti yu mel noonu mm-hmm. dañu fas yéene effectivement euh, teg jéego bu bees fi ñuy toll lan la ñu ci biir CDS dañu nekk confédération confédération bu nekk nañ ko dans depuis dix ans donc du barke démb rek la tàmbali ñoo ngi nas di don ci ñoo ngi ànd am na yoo xam ne ñoo koy defandoo ñooy xëccandoo ñooy doorandoo waaye ku nekk da nga nekk sa bopp ba pare nga am coobare bu mott li ñu déggoo rek la ñuy defane ñu nekk confédération waaye nag ñun seet nañ ne war nañu gën a euh, maanaam yokk kar mi xaro ba tax na décidé nañu en tout cas jéggi jéggi bu bees nekk léegi fédération fédération bi nga xam ne moo na wutu confédération boo déggee fédération mooy rofo bi dina gën a euh, maanaam ñoom day gën a tax dina gën a tax hmm. ànd bi dina gën a maanaam euh, tar ba tax na loolu mooy wane yéene bi mais au la de la CDS ñu ngi namm taxawal li ñu naan gauche plurielle parti yi nga xam ne yëpp sensibilité de gauche la ñu am maanaam dañuy bàyyi xel ci doomu aadama bàyyi xel ci li ñëpp bokk moo war a ëpp li nga xam ne ku nekk sa bopp bopp la parti yooyu yëpp ñi am sensibilité gauche boobu muy parti d'obédience communiste yi parti d'obédience socio-démocrate yi ak yeneen yi progressiste yëpp ñu man ko roofoo nekk benn say mm. pour ànd loolu tam ñu ngi liggéey bu baax a baax te am nañ ci en tout cas ay résultats yoo xam ne jar na bàyyi xel. mais loolu xam loolu moom lu soo ah, ci ci à l'époque loolu lu ñu leen doon euh, ŋaññi yéen les partis de gauche parce du ñu naan euh, les partis euh, yi nekk c'est des leaders charismatiques mais nit ñu bare ñu duñ leen wax effectivement c'est des problèmes d'ego moo taxoon est-ce que yéen. dafa dafa mel dafa xam da ngeen dépassé benn jóge li nga wax nii mu mën a jàll ngeen former une que ci à l'époque euh, gisoon nañu beaucoup de leaders bon pratiquement yéen a bokkoon gis-gis en parti quel à euh, quelques différence près si doxalin réew mi mais loolu taxul woon ngeen les partis de gauche regroupé wu. Euh, waaw mais xam nga dépassé nga wax dépassé nag ci tubaab mooy maanaam fi nga nekkoon nga weesu ko. <laughs> dëgg la mais foo nekkoon nga weesu ko ça veut dire am na loo xam ne jàpp nga ko téye ko maanaam nit da ngay jàng mm-hmm. effectivement jàngat nañ ne mm-hmm. li ñu maanaam séparé. taxu koo bari taxu bari noonu nag est-ce que nag yëfu nit la rek. ak leneen jamono mooy laaj ñaare nga xam li la war. jamono jooju nag may nañu léegi comme ñu ngi doxante di gisante nekk gën a jegewoo ba léegi pratiquante bu yàgg a yàgg réew mi tollu tam fenn foo xam ne daf ko laaj. defe naa tey dina gën a yomb démb effectivement ñi fi nekkoon teg mbir mi ci départ ñi ci bari léegi jëm nañu mag ñeneen ñoo fi nekk ñoom seen bopp waaye ñi ci bari bu dul nañu mbir mi bu baax a baax. jëlee nañ ci ay jàngat effectivement léegi ñu ngi jéem a avancer di progresser parce que tam gën nañu minante gën nañu roofoo gën nañu xamante jël nañu surtout compte que réew mi effectivement am na loo xam ne tey daf ko tej comme exigence loolu tam fi naan lu ñuy dimbale la en tout cas ci loolu xam nga euh, est-ce que loolu wundul ni da ngeen di waaj a effectivement former comme ni nga waxee former benn bloc en perspective de élection yi di ñëw est-ce que dak si seen waxtaan dak dem ngeen ba junj effectivement da ngeen former benn benn benn groupe homogène bu leen mën a ngeen yéen yéen xàccandoo yéen ñëpp ngeen dóorandoo. Euh, namm nañ ko maanaam boo bëggee ñun ni ñu gisee ñun waa CDS. Mm-hmm. confédération pour la démocratie et le socialisme jàpp nañ ne ñun suñu bopp roofoo bi moom dafa war a gën a euh, tar tuddal naa la sànq ne dañuy passé confédération nekkaat fédération donc gën a jege gën a ànd gën a bokk yu baree bari bari ku nekk nga bàyyi sa wàll euh, souveraineté nga nangu mbooloo mi ilif la loolu namm nañ ko tuddal naa au-delà de de la CDS bëgg nañu mu gën a yaatu famille gos bi yëpp réunir mooy la gos plurielle te ñu ngi ciy dox jàpp nañ ne perspective bu am solo la ñu nag ñu bëri ñoo ko waxandoo. waaye nag fi jamono ji toll ak li mu laaj ci urgence yi dañ ni képp koo xam ne valeuru république ñoŋ na ñoŋal na la. képp koo xam ne li nga gis muy xaw a ruur di bëgg yeewu fii doyu la képp koo xam ne ëllëgu réew mi yitteel na la. am na foo xam ne war nañu jot daje moo tax namm nañu liggéey ci li ñuy naan un vaste front républicain est-ce que dina sotti est-ce que du sotti. Mm-hmm. ñan ñoo ci nara a ànd en tout cas yéene baa ngi fi. Mm-hmm. des gauche plurielle front républicain pour lan lu tax ñu ni joxante loxo di ànd di jéem a jëfandoo c'est li ngay bëgg a yekki diisaayam ak taraayam méttiyaayam ak soloom mooy tax ngay wut wollu. doole boobu nag ñu ngi koy jéem a construire loo xam ne danga koy wax rek mu sotti loo xam ne benn xëyu benn bés la mais sant suñu borom en tout cas ay jéego ñu ngi ko ciy seex waaw justement gis nañu aussi PIT vraiment loolu c'est lu tubaab dox c'est tout à votre honneur PIT bés bu euh, situation amee day joxe gis-gisam exemple mujj bu may joxe mooy élection yi passé bu l'ancien président de la République John doon euh, convoqué euh, woote la dialogue déggoon nañu sa discours ba nga jo waxee sa désaccord par rapport ak euh, élection yi ñu bëgg ak ñu bëgg a delloo gi ñu bëgg delloo ginnaaw ak la loi la loi d'amnistie loolu euh, malgré que yow yaa ngi bokkoon ci coalition Benno Bokk Yaakaar d'abord la première question bi est-ce que bon bien que coalition Benno Bokk Yaakaar amatul est-ce que au niveau du PIT loolu nekkul la nga xam ni bon d' abord seen particularité la mais est ce que du nekk la nga xam ne dana mën indi gàllankoor seen relation ak yeneen parti d' autant plus que am na ñi nga xam ni euh, souvent c' est bu ñu koy wax c' la politique il faut souvent utiliser la langue de bois alors que tel n' est pas le cas pour le PIT et d' ailleurs loolu moom mos nekk sa sa sa sa lignée. di nuyu président de la République Macky Sall bi nga tudd. di euh, am xam-xam bu wér ne. defandoo nañu lu baax a baax suñu réew. lu baax a baax ci ay fànn yu baree bari muy ànd boo xam ne nawloo nañ ko bu baax biñ koy defandoog moom du woon caagin ne rek ay circonstances d'abord dañ ko doxandoo wute ko am ko ni mu ko waxee woon mooy buñ ko jotee dañ ko yorandoo ñu yor ko yorin bu rafet waaye Moustapha ànd dëgg da cee baax ànd boo nawee sa àndandoo boo gisee li nga xam ne yaakaar nga ne moo gën danga koy wax mu des nag mu dégg la mbala mu ñàkk la dégg effectivement ñun waa PITD noonu la ñu nekk ak suñuy àndandoo yëpp ba tax na bu loolu bu mu nee tene jon wax nañ ci suñu xalaat ndax noonu lañ ko gisee woon natte ko noonu du loolu dara du loolu dañu laaj lan ngeen xalaat lan ngeen jàpp ne moo gën ñu wax ko ni nga xam ne suñu aqulaay taala la loolu nag boo koy def moo baax si ki ànd parce que ànd boo ko lalul ci dëgg defe naa ne du dëgër ba tax na li nga ne mooy identité remarquable PIT nga seedeel ñu ko waaw ah, ñun de bu dee loolu la ñu xàmmee sant suñu borom bu baax baax ndax nag politique dafa war a ànd ak euh, yëg-yëg ne li ngay def lu am solo la ci askan wi képp koo xam ne yaa ngi yëkki sa loxo di ko dugal si mbiru politique jàppal ne bu dee ci Sénégal nga yeewu jàpp nga ne yow da ngay dugal si loxo lu yitteel euh, ñaar fukki million doomu aadama yi fi yeewoo boobu nag responsabilité bu rëy la dafa ànd ak dëgg dafa ànd ak dogu dafa ànd ak loo xam ne boo ko defee ëllëg bu ñu la nee yow daa defoon li laa waxoon li doo rus. waaye léegi bu ñuy ñëw euh, monsieur le secrétaire général monsieur le ministre sur ci actualité. Euh, assemblée nationale le président de la république dakkal na ko euh, ci say discours ñu yàgg déglu ci bu nguur gi falo bu bees falo ba léegi yow am nga ay points de désaccord yu bari ak ñoom est-ce que dissolution assemblée nationale bi bu ñu yaakaar nga ni lu war lu lu war a mën a nekk la d'abord. Hmm, Moustapha dissolution bi booy seet dissolution en soi maanaam tas pencu ndaw réew mi. pour tëggaat ay élections yu bees ñeneen ñëw loolu amul benn sénégalais boo xam ne nee na warul mën a nekk ndax suñu poñ suñu constitution suñu charte réew def ko prévoir may ko président la république donc wax ji nekkul foofu. xam nga lan moo jar a tiit wax weddi bi Moustapha am na leen loo xam ne ci wolof dañ koy jéem a wax lu ràññeet li ki nga xam ne day wax ndax naxaate ak ki nga xam ne day wax laawale ci nax boppam maanaam kii wax pour nax la. daf lay jéem a làq li nga xam ne am na wax la lu amut waaye day am koo xam ne moom day jéem a làq boppam li am wax boppam lu amut mu nekk nag sport bu jafe ndax bu fekkee ne yow yaay kiy naxe yow yaay ki ñuy nax dina xaw a jafe yaay yaay jëf jëf bi ci sa bopp nga ko jëmale loolu nag boo fa tolloo jaar na ragal lan laa bëgg wax kàddu nekk na lu am solo surtout nag ci boo tolloo fenn yor yenn responsabilité yi da nga waat ne sa kàddu da koy sàmm ndax sa kàddu du kàddu bu neenum neen jàpp naa ne Moustapha jàng nga téere boobu suñu mbokk bi tudd Cheikh Amidou Kane bind xam nga daa nga fàttaliku euh, téere boobu boo ko firee sànq yaa ngi naan professeur <laughs> euh, jàngalekat laa moo tax ma di ci xuus <laughs> boo ko ubbee ci fi mu tàmbalee mooy fi sëriñ bi meree jàpp Samba doo Samba Diallo di ko dóor xëcc noppi lu tax mu di ko dóor <laughs> dóor bu metti mm-hmm. mooy sàmba sàmba bi muy jàng di tari dafa juum dafa juum sëriñ bi mer di ko dóor di ko dóor di ko dóor ne ko waxal mu waxaat mu jub sëriñ bi gën a mer ne aha yow mii ndekete kay li ñu laaj mënoon nga ko jubal ngay saggan saggan ba ngay juum wax ji ngay jàng du waxum neenum neen wax ji ngay jàng wax boo xam ne ki la sàkk moom moo ko wax wax ji mooy ponk àdduna waroo sàggan mukk ba nga di ci juum boo ci waree jaar danga nga dañ war a dagg sa làmmiñ <laughs> juróom-ñaari yoon sama jol la mu ngi jooy waaye muy baamtu kàddu gi di ko jubal néew ma ne boo jiitee réew sa kàddu yem na ni si kàddu gi nga xam ne moom moo sàkk lu am waxuma loolu waaye sa kàddu du kàddu bu neen kàddu des koy sàmm kàddu dañ koy sàmm donc jàpp naa ne am na fooy toll boo doxalee leen li sama dëkk ñi ngi ko digaaleel indil nga leen jaaxi ren lan moo waral nga signé benn xët boo xam ne danga ne ñii nekkal euh, waa réew mi ci pencu ndaw réew mi fukki fan ak ñett dama leen woo pour ngeen déglu déclaration de politique générale nga signé ko envoyé ko nga xaar ba fukki fan ak ñaar nga ne yéen ñi nekkoon loolu jàpp leen mbir mi tas naa ko nga ne naxaate bu ma def dama ko def ndax ak ni nga ji wuti lay non parce que ñoom nee nañu en fait le le président de la République nee na loolu lu am yoon moo ko may moo tax mu def ko. ma ne euh. yoon bu la ko mayee nga war ko def. Mm-hmm. doone man convoqué naa pencu ndaw réew mi le treize. ndax kàddu dafa am solo. Mm-hmm. lan lay jur lu mel noonu. Mm-hmm. ñun ñëpp dañ ko war a jàngat bu baax sa biir kër yooyu sëñ bi Moustapha sama biir kër man mii ñi fa nekk loo fa yilif yilif yilif bu waa kër ga muy jigéen yi muy xale yi bu ñu nam tàmmee ci say kàddu yow sa amoo kàddu nañ lañ lay téye. benn loo wax duñ la gëm ñaar li ñu fay jëmbat du lu baax boo tàmmee même pour am jàmm ci say ndaw say gone nga di leen di wax loo xam ne amul pour rek jàll jàppal ne ñoom tam dañuy jàpp ne loolu yoon est-ce que mën nañu kuréeloo nekk société bu fekkee ne ku nekk si ñun waxam day tox. mais ñoom so euh, su euh, doguma la mais le président la république loolu la ñu wax njiitu réew bi fi jàlloon Macky Sall dafa nii da ci ay discours am dana wax ni. Euh, le président de la république dem na ña wax waxeet ba nga xam ne léegi ay waxam kenn dootu ko euh, gëmati. nga ne ñoom loolu lañ doon wax loolu lañ doon wax Macky Sall. à supposer que Macky Sall te encore bëgg naa ñu da doon wax di weddi. Mhm. ñu ne loolu baaxut. lu baaxul doonee baaxul rek waroo ko jëfee dégg naa benn si ñoom kenn si ñoom mhm. effectivement di naan kooku tam dafa def loo xam ne defut. Mhm. dafa wax loo xam ne waxut mu ne de façon loolu moo mës a am. loolu mooy am loolu mooy am ba ma tiit loolu d'abord li nar a am tout le temps tout le kenn si ñun xamu ko benn ñaar bu fekkee ne am na lu amoon nga ne baaxut nga la yow bu ci xuus donc même à supposer que président Macky Sall da doon wax lenn def leneen à supposer te man jàpp ne loolu du demee loolu kay bu fekkee ne loolu ne nga baaxut xanaa doo tàmbali rek tegu sax si loolu en tous les cas acte bi ñu posé barke démb nekk na un acte grave un fondateur de disqualification de la parole présidentielle mm. baaxul si kenn ba tax na war nañ gën a tey war nañ gën a am sens su responsabilité xam li ñu dénk lan la tudd naa ko sànq ne naa képp kuy dugal sa loxo si politique waxuma sax nga am ci ndombo tànk jàppal ne responsabilité bi nga am lu garaaw la benn ndax li ñëpp bokk mm. ngay ñëw naan da nga ciy wax di ci jëf mm. massa nag boo ci nekkee di ci jëf ba ñu dénk la ëllëgu réew mi. waa ci loolu dafa mel ni toujours ñu des ci dissolution assemblée bi ñu euh, ku jegi ñu leen metti mooy ni nga ko waxee léegi ñu ci bëri mooy li le président la république waxee ni euh, da koy dissoudre alors que ci njëlbeen neewoon na ni da lay da lay day reculer déclaration de politique générale ba le ba le treize le douze mu dissoudre ko ma ma dégg la ma ma liir la ci sa benn euh, entretien nga ni raison yu ñu joxe waa nguur gi. c'est des c'est des waa juste député yi c'est c'est pathétique moo boobu nga utiliser pour mën a expliquer euh, li tax ñu war a mën a euh, de assemblée euh, assemblée nationale lu tax nga utiliser mot boobu nga xam ne c'est assez lourd. je ne sais pas si les mots sont lourds. mais dama jàpp ne rek am na fu ñu toll. man yàgg naa ne ragal naa du ñu gaaw a ñëw def déclaration de politique générale ndax parewuñu ñaare ñu ne la mbir mi. li ñuy woote ñoom projet. Euh, pare na mais ñaare ñun la ñu ngi koy togg. joxe nañu sax échéance ne weer sangam lay war a ñor ñu génne ko. ma jàpp ne xamaguñu bu baax fi ñuy teg seen tànk li koy gën a mooy fi réew mi toll. parce que du xabaar nga nga wax dëgg yàlla xam nga ne réew mi tënku na te plus ñuy dem. d'ailleurs FMI génne na ci benn benn pataxal. pour wane encore que FMI daf koy wax ak kii ak kii waxinam mais réew mi tënku na. Mhm. te loolu baaxul si ñun baaxul si réew mi. ensuite am gisuma fu ñu jëm maanaam. mbir yi leeragul daal si si si Sénégal amul amul leer lu ñu teg suñu loxo. ga bu gaagaa nag. Euh, wax yu rëy yi changement systémique. Hmm. ay yu mel noonu ngay dégg mais lan la recouvrir euh, Moustapha réew lu diis la réew lu am solo la réew lu jara moytu la loolu boo ko xamule ci sa yoon da juum en tout cas li muy niiru li li tàmbali li muy xeeñ ñu wax ko te neexut neexut moo ne day am na fu ñu toll woon te woy wi demoon na bay bëgg a neex man malheureusement bu ñu teggiwul suñu tànk en tant que pays ci yoon wala non yoon mi nga xam ne moom lañ ko teg ah na xaw a jafe si ñun ñëpp foofu lañ toll justement bëgg naa aussi am sa sa gis-gis ak si lii avant même ñuy la assemblée nationale bi parce que président de la république de proposer na benn projet parce que loolu moo tax sax mu gën a moo joxee argument pour ñu dissoudre HCCT euh, ak euh, conseil économique et social député yi euh, bañ ko nee na entre autres loolu bokk na ci raison yi tax mu dissoudre assemblée national est-ce que yow ah, yaaka àndoon nga ci ñu ñu ñu dissoudre ñaari institution yooyu. ànduma ci. lu tax Moustapha ànduma ci parce que bokk naa jàpp naa ci Sénégalais yi nga xam ne gën nañu pratiquer institution yooyu. li jege juróom-ñaari at nekk naa ministre du travail mais en charge des institutions. des institutions assemblée nationale mën naa la ci bindal téere <laughs> ak li ma fa fekkee am na luy bari lu ñuy wax. Mm-hmm. wax dëgg yàlla. loolu amul. non am na lu ma fa dund lu ma fekkee. Mm-hmm. fekkee wu rek toog mais dama ko teg fenn mm-hmm. bind ko bu baax a wax dem naa HCCT muy au conseil de collectivités territoriales bi fa bi koy. ndem si yàlla tanoon di jiite ba tey jii daanaka ba mars 2000 euh, kii bi 24 maa maa fa doon dem au conseil économique social environnemental noonu ak ni ñu leen tëggee ak li ñu fa doon liggéey am na loo xam ne mën naa ko seede ensuite am na noo xam ne terrain réew mi moo ko indi woon assise nationale yi am na lu mu laajoon am na loo xam ne itam wax dëgg yàlla looy nekk sénégalais sénégalais boo gisee ne am na daanaka ci réew yëpp da ngeen da nga war a posé wu question mooy lu ko fa bàyyi il faut pas recommencer yooyu loo xam ne am na démb ak barke démb nga fekk ko fi ñëpp am ko. Hmm. boo koy laal laale ko ak i loxo yoo xam ne loxo yu yu moytu lay doon. waaw ah, mais ñoom nee nañu pour ñoŋal alal réew moo tax ñu. Euh, ñoŋal alal réew mi mu ngi doon tàmbalee fi mu gën a yombee est-ce que déggoo ne ñu ne am na li ñuy naan ay fonds spéciaux wala ñu di ko wooyee ci euh, wax ju gën a gaaw fonds politique déggoo ko lan lañ ci waxuloon. est-ce que dégg nga kenn moom nee na fekku fa dara de le président de la république ah, moom loolu wax nee na fekku fa euh, dara man na xaw ma loolu tam xam nga budget dafa am na mu taxawee mhm. nga xam ko ma xam ko mhm, justement wax dëgg yàlla président président la mhm. waaye fekku ma fa dara boobu euh, man damay damay xaw a da nga damay muñ damay damay muñ bu ma ko déggee loolu kenn waxatu ci est-ce que Moustapha seetlu nga ne gouvernement bi bu bees bi xam nga niñ ko tëggee bokku la gouvernement bi fi jógee ne serait sous rapport du nombre dañ ne woon ne dañuy jéem a yaxanal waaye est-ce que dégg nga fii loi de finances rectificative mm-hmm. est-ce que dégg nga benn agence boo xam ne nañ dañ ko député yi ñoo ko ñoo ñoo leen ko bañal surtout avec DOB bu ñu bëggoon présenté waxuma loolu dema ne mm. balaa ñu lay bañal mm-hmm. waxuma de waxuma déclaration de mm-hmm. d'orientation budgétaire waxuma dama ne balaa ñu lay bañal yow yow mi nga xam ne yaa ñëw war a teg sa mbir au moins armature bi armature bi li nga fi fekk xanaa di nga ne léegi lii laa ak yooyu nii laa ko bëggee direction yi nii la war a tamee ak yooyu est-ce que dégg nga ci dara lu ñu wàññi lu ñu jëlee ak lu ñu ne dañ koy dégg gu ma ko de donc am na lu fi nekk loo xam ne. am na benn benn benn direction bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu wàññi benn benn bu ñu wàññi. ak boo moytuwul mun nga li muy bëri yu ñëw. donc <laughs> dama bëgg ne. béy ci say woom. ak fi gën a yomb argument boobu nga xam ne yaxanal la c'est fallacieux ensuite même bu fekkee ne jàpp nga ne yooyu institution da nga ko war a dindi defal sa élection yi nga nar a anticiper nga am assemblée bu bees nga dindi ko sinon boo ñëwee soumettre ñi nga xam ne démb ak barke démb ñoom ñoo newoon lii baax na ci réew mi. Mm-hmm. nga leen wax leen ngeen xalaat bu ñu la nee lii moo nekk suñu xol wala leen ci mere am déet mm-hmm. da nga bëgg ñoom ñoom incohérence bi nga xam ne. Mm-hmm. day tax ne tey ñu xarab li nga xam ne démb dañu jàppoon ne lu baax la bu ñu ko defoon dañuy weddi seen bopp. ñoom li ñu jàppoon démb lañu jàpp tey. yow nga jàpp nga jàpp waaw mais bu ñii duñ leen fal ak un programme. seen dans seen programme yi dafa dafa leer nañ ni ñoom neen suñu ñëwee du ñuy dindi conseil économique et social ak HCCT yàlla def ni ñoom lu ñu fal est-ce que du cohérence pour cohérence député du ñu leen nangu loolu parce que en fait c'est une volonté populaire pour ñu dindi loolu est-ce que député yi waruñu woon ànd ànd ak ñoom ci ci cohérence pour cohérence jàpp naa ne xaaroon nga organiser sa élection mm-hmm. nga jéem a am mm-hmm. une majorité boo xam ne dafa ànd ak yow li nga gëm mm-hmm. mooy li gën a jaadu jàpp naa jàpp naa Euh, gis nga def dara ba pare di lay dafa nekk loo xam ne lu yomb la euh, le fond de l'affaire du loolu boo gisee mbir bi niñ ko parax paraxee mooy ne am na loo xam ne xew na fi sénégalais yi ñu ci am na ñuy bare bare du mën a ñëpp seen i bët mu ngi commencé euh, ubbeeku fireeku bu baax a baax ñu ngi teg seen bët ci yu bare nee naa la sànq yaa ko njëkk wax sax ne réew mi day am na fu mu toll tey di tagga tembe plus ñuy dem plus muy fës nekkul suñu gannaaw suñu kanam la nekk donc désaffection bi dafa am loolu nag boo ko gisee day tax ne da ngay naan naa yàkkamti naa gaaw a def mbir mi profité ci la bi ma amoon démb pour dem man loolu lépp mooy sama problème sama problème mooy rek wax weddi bi le 12 ak le 13 wax dëgg yàlla jege jege woon nañu jege na lool sàmm kàddu dañ koy sàmm jéggi le 13 def déclaration bi ni nga neewoon ne da koy def ndax sa signature c'est sacré. waaw mais c'est que man dama dégg dama dégg président eh, dogu eh, dogu ma dama dégg président ni en fait li tax mu mu dissoudre assemblée nationale du DOB bi parce que assemblée li tax mu jox mu fixé leen kii bi. Euh, astafurlah du DGP bi euh, du c'est pas parce que daf ko daf ko convoqué le treize c'est parce que assemblée nationale dafa jël la nga xam ne du du du wareefam la nga xam ne moom moo war a fixé date assemblée fixé ko. mais c'est pas pour que le premier ministre ñëw foofu moo tax mu fixé leen le 13 moom bien que xamoon na ni effectivement que day dissoudre assemblée le 12 d'autant que jotoon na conseil économique euh, euh, euh, avant avant muy muy muy def la ba conseil constitutionnel wax ni que mën na dissoudre assemblée bi le 12 c'est pas. nee na le 12 mais à partir du. à partir c'est ça. parce que boo nee le 12 day mel ni. waaw le 12 la ko waroon def. voilà c'est ça gis nga boo ci tukulóor xam naa ne. boo ko boo bëggee lekk as bu ndaw a ndaw mm. ngandam maamu picc nga di ko tudde mhm. am na sama benn mbokku séeréer boo xam ne dafa jëndoon ay tàndarma yoo xam ne yu am solo ci bëccëg bi mhm. yu rëy yu rafet ci melokaan mhm. mu di ko waajal pour dog ñu nekk si biir weeru koor ah timis di waaj jot ñu ne léegi dog jot na bi benn tàndarma mu am lu mu ci gis mu sànni mu baat beneen bi gisaat ci leen mu sànni mu dese benn xam nga lu mu def mu safa mu dem fay lamp yi <laughs> da ko waroon lump rek fay lamp yi ubbi lump <laughs> nga lay dafa feeñal lu baree bari. kenn laajuloon président mu ne man defewu ma ko pour naxee mbaay. waaye loolu mu ngi woon ci xelam. ma ne diggante fukk ak ñaar ak fukk ñet ñett. dara solo ensuite nga tudd ne dañuy bëgg a jël ay sañ-sañam des kenn xalaatu ko. mais moom loolu la wax loolu la wax. waaw ma loolu wax bi kay dégg naa ko moo tax ma xaw jaaxle tuuti ci wax yi. dama jàpp ne wax dañ koy wot mbir mi kay mooy ñoom noonu la ñu nàmm dañuy bëgg parax paraxee affaire bi mu gaaw am na tey. ndax man jàpp naa ne li gën a gaaw ci ñi nga xam ne ñooy jiite ñu mel ni ñuy jiite tey mooy ñu ne leen nañ jëfe li ñu doon wax kàddu ga jëf ji ñàkk mën a jëfe li nga doon wax mooy feeñal est-ce que déggoo woon Moustapha ci balaa poste yi di nit di jot dañuy xool ku nekk li nga mën ak loo mënul ak yooyu ñu wala jël. appel à candidature du loolu la waxoon. Mhm. ah léegi day dégg naa ne bu li ñu ñekkan ci ñoom ne na li ñu njëkk xool mooy. foo bokk. Mhm. am déet loolu déggoo ko. ay yeneen. quoi que repréciser na xalaatam nee na waxu bëgguloon wax loolu. ah ci ay waxam. bëgguloon wax loolu la wax. Euh, man nag dama damay làkk eh, tukulóor. te sa mbokk si yéen la de. Euh, mais ndeket découvrir naa ne am na ay si yoo xam ne séeréer lañu <laughs> mosuma ko xam ndekete am na ci seen biir. Eh. donc wax weddi wi mhm. dafa commencé bari. Mhm. te wax yi dafa nekk ay wax yoo xam ne yu doy waar la est-ce que seetlu nga yi suñu diggante ak bitim réew. am nañ ci jëfandin boo xam ne mën nañu jural loo xam ne du lu gën si ñun à différents niveaux. comme comme lan comme comme. yenn wax yoo xam ne waxuwul la. parce que dégg nga wax yi feeñ suñu diggante ak euh, suñu mbokk marocain yi dégg nga ko mën la déggoo ko. dégg ma si jaaraat mukk ci mm-hmm. micro yi mais am na. Mm-hmm. est-ce que dégg nga wax ju dijj bi ñu wax pour fësal ne ñun dañuy jàppale niñ ko mës a defee. Mm-hmm. palestiniens yi. ak niñ ko wax ak niñ ko liñ ci duggee gàllankoor. est-ce gis nga ne. projet boobu ñu amoon fii pour jël togg ndoxu géej bi pour am ndox mu neex niñ ko seppee ak liñ ci wax ak li mu jur ci xat-xat mën naa continuer di décliner décliner mais est-ce que loolu du responsabilité régime bi passé li ñuy defoon parce que suñu jëlee projet ndox mi aussi euh, ñoom duñu ni effectivement c'était un projet ba nga xamul amuloon benn njëriñ Sénégal ñoom loolu la ñuy wax le nouveau euh, le nouveau régime la gis nga man day mën naa am sama gis-gis fa la yem jàpp naa ne li fi amagum li ñu gis ci réew mi. Mm-hmm. ñu di ko ndamoo ñun ñëpp li fi ñekkoon liñ fi taajoon moom lañ fi nekk BRT déggoon nga liñ ci doon wax am déet biñ koy inauguré ak pompe lañ koy inauguré wax ci liñ ci wax euh, exemple beneen ma wax ko rek ndax démb sam feeñaat na ci seen mbir yi mm-hmm. euh, loolu ñu yónnee si biir jaww ji satellite boobu mm-hmm. ñu mm-hmm. ah, ji nañ ko tey sax na tey màgg na tey jur na tey déedéet fu mu jógee fu sori la ak yeneen ak yeneen yeneen yu mel noonu. Euh, bëj bërëbu fajukaay yi. ñu ngi wane démb gis naa ci seen i kii hôpitalu Tivaouane ak li fa nekk macha allah loolu de ay jëf la ak liggéey bu sax. donc am na loo xam ne mais ñoom soo leen waxee duñu naan état la comme li ah, régime bi fi jógee aussi. donc amul benn loolu. <laughs> mais dama jàpp ne fondamentalement mhm. man gisaguma. lu bees. lu ñu indi est-ce que juróom-ñeent mën nañ ci teg dara mooy projet yi nga xam ne amoon na fi. Hmm. continuer mooy nga xool bu baax nga xoolant te bañ a hmm. waxantu. Hmm. li nga xam ne am na njëriñ nga téye ko bu da baax. leen li nga bañ ko wax par esprit d'adversité. ensuite même bu fekkee ne da nga koy bàyyi nga xam noo koy bàyyee. pourquoi parce que daf lay aliéné ay réew yoo xam ne am ñu solo ci seen coopération ak sa réew. te mënaloo sa bopp lépp loolu. appel la boo xam ne ñu ngi koy bëgg a def ndax liñ fi teg wane na ne bu ñu continuer noonu nañ wéet loolu te baaxul si. waaw mais ñoom c'est que euh, monsieur le ministre ñoom du ñu ni en fait ñoom du ñu am loolu du ñu wax du ñu un projet projet bi pour mu mun a dox il faut que am ay euh, kuréel yi nga xam ne du ñuy ànd ak ñoom pour mu dox euh, teg du ñu benn jéego assemblée bañal leen ko est-ce que loolu aussi en tant que poli en tant que politique en tant que mouvement. amuñu pour quoi bien que loi bu ma leen ko may ñu dissoudre assemblée pour dem yeneen élection pour wut des députés yi nga xam ne ñoo xam ne ñoom ñoom ak ànd pour mën a teg li ñuy dig sénégalais est ce que loolu aussi warul ma nekk benn raison war a mën a tax ñu dissoudre assemblée nationale pour wut ay députés yi nga xam ne ñu ànd ak ñoom nee naa la sànq dissolution bi eh, eh. wax dëgg yàlla kenn waxu si daara eh, dama ne rek jëfin ja ak kàddu ga yow ne nga mm-hmm. suba parce que yaa ngi doon wax le le treize na ngeen ñëw mm-hmm. ñu waxtaale déclaration de politique générale au moins nga gindi Sénégalais yi ne fii laa leen jëmale. Mhm. nga ne dañ koy woote ci bu nga signé ko def ko ci ay kër boobu nga ne assemblée tas naa ko donc kenn waxul ne assemblée waruñ ko tas waaye jàpp na ne benn fan bi ci diggante bi mhm. am na lu mu fësal bu baax a baax donc nit ki duñ la joxe lépp may la lépp jël lépp gis nga Sénégal dafa am ñu jiite mhm. kër gi ma nekk nii. muy seen kër yéen dafa am ku fi jiite. waaye du caagin ne jiital ngeen ko rek moo leen gën yéen yëpp lu ko neex mu def doomu aadama nag dafa gaaw a fàtte dafa gaaw réer dafa gaaw a naagu naagu hmm. naagu hmm. fàtte ak réer hmm. baaxul ci kenn waaye baaxul ci koo xam ne da nga am ay responsabilité yuy emporter destin wu une communauté nationale léegi du ñuy du ñuy des toujours ci assemblée nationale ak euh, élection yi parce que tas nañ ko du ñuy dem ci ay élection Euh, gis nañu ni euh, le 17 novembre d'ailleurs le président de la république euh, jël démb rek am na benn communiqué bu génn bu ñu bu bu alliance pour la transparence des élections ma xam ne PIT bokk na ci signé pour mën a saytu élection yi ba pare ci seen si dama dégg ñu ni ñoom en fait le état de droit duñ ko menace ci Sénégal ci seen ci seen communiqué bi l'état de droit est menacé ah moom la ñu wax ci ci ci ci nasaraan Euh, en quoi Sénégal état de droit nuñ ko la la la menacé wu fii ba mu ñuy def communiqué wu pour mën a saytu euh, organisation élection yi. xam naa ne dig ma dimbale wax ma. Mm-hmm. bi sama mbokk yi falo ba léegi. Mm-hmm. depuis mars 2024. Mm-hmm. ñaata nit lañ fi téye ci mbiru. naan wax nga wax yoo xam ne bu xaw a ñagas jëmale ko si njiitu réew. mala ci premier ministre. loo xam ne dañ ko doon reproché. ñu gaaw na bar tar na defe naa ne déjà. ratio bi mu ngi commencé yéeg mm-hmm. loolu di benn mm-hmm. yéen ñii di liggéey ci bërëb yi ngeen di liggéey mm-hmm. lan lañ fi waxoon lu ngeen fi amut ñi nekk ci mbedd mii ak ñeneen waxuma ne yoon la du yoon ak yooyu lan lañ fi dégg jaaykat yi lan lañ fi gis maanaam feuilles yi ñu taal dafa bari déjà ci watu waxu jëfin ci lu gàtt parce que yàggul dara dara dara loolu nekk na loo xam ne gis nañ ko bu baax ensuite gis nga reddition des comptes parce que foofu la mbir mi sooxee ko. jàpp naa ne lu yoon la euh, reddition des comptes mooy laaj hmm. nit ñi li ñu leen dénkoon nan hmm. lañ ko defee ak yooyu bu ñu lubalee yar dal seen kaw jàpp naa ne loolu kenn warul mun ko contester hmm. waaye nag am na lu doy waar bu fekkee ne yow mu Moustapha waroo génn ndakaaru gii duñu xaar ba ngay waaj a génn ndakaaru nekk sa oto. ngay egg fenn ñun la waaw yow sëñ bi kat waroo génn ak yooyu dafa am yoon nu mu doxee dañ la ko war a yëgal nga xam. am déet. est-ce que loolu nekkul la nga xam ni dafa duñ duñ ko tàmm ba nga xam ni euh, ñoom est-ce que du oubli wala ñoom yaakaar nañu loolu mooy loolu loolu mooy loolu loolu mooy jàddu parce que gis nañu ni aussi euh, nguur gi fi euh, bi bi ñu bu ñu bu ñu wutu bien que ñoom moom lañ doon xeex. daanaka noonu la noonu la doon noonu la doon doxalee. ci ci Sénégal yi ba dem dem aéroport sax def ay liste. Euh, nit ñi dañuy génn yoon li mu la tënk mooy yow. Eh. bu lay yoon di rëbb. Eh. rëbb bi sax c'est un terme inapproprié eh. bu lay bu lay topp. bu lay topp da lay yëg leen dama lay topp parce que mm. duñ la bett. Mm. mais bu fekkee ne léegi yow xamoo yëgoo tinoo mais ñu ne ñu ngi lay topp di ay bi defe ne loolu du yoon te gis mm. nga ki jiite war a wane yoon. warul jàdd yoon. demewuloon noonu warul demee noonu ensuite dem ba jàpp ne yow réew mi. ñëpp dañu war a féete benn boor mooy sa boor pour mu ba pour nga mën a nangu leen ñu nekk ci réew ma ne loolu xeeñul neex mosul jur lu baax fenn malheureusement ci fànn yu bare bare bare loolu la ngoro gi fi nekk nii te nekkagul sëy loolu lay wone moo tax dañ ko war a dàkkal état de droit nekkuñu rek ci naan dañ koy menacer mais dañ koy jëfe ñu gis ko ci ay fànn nag yu bare bare bare ci lu diir bu gàtt te gaaw loolu nag baaxul te jëmul kër te duñ ko du ay waxantu mais duñ ko nangu ndax mënuñ ko nangu gis nga Sénégal dafa am jaar-jaar dafa am woy dafa am démb ak barke démb te ñu mel ni ñun tudd nga ko sànq mën nañ ci compter ay page page lépp dafa am fu mu jaar ak lu mu leen jaral boo yaakaaraan tey jii nag loolu mën nga ko ñëw rek foo xar yi alors que yaa ngi si xaw a jot ci anam yu mel noonu boo ci boolee sax yeneen loo xam ne bokk ci ngeen loolu yëpp danga koy rocc nga instauré état de non droit ah jàpp ne day du prospérer. mais seen alliance bi euh, yan stratégie ngeen fas yéene mettre en place pour mën a daanaka bloquer li ñu bëgg def ñoom à à à leur niveau est-ce que jot ngeen waxtaan wala am na envisage ngeen waxtaan pour mën a former un un un bloc homogène. pour mën a combattre ñi alliance boobu ñu fësal mooy. Hmm. alliance boo xam ne dafa ne nañu jaaral yoon. élection yi élection yi xam nga élection Sénégal depuis bu yàgg yàgg yàgg hmm. dañ koy waxtaanee. parce que munoo ne dañuy dem ci wote di set nga ne léegi donc réduire nga délai yi objectivement moom nga def donc li fi nekkoon yëpp daanaka day toxu nga ne nag yow yaay dogal rek nii yooyu déedéet da nga ko sax ak ñeneen. waaw ah, mais ñoom affaire bi décision bu ñu ko jëlee ça fait juste 48 heures. est-ce que est-ce que yàkkamtiwu leen ci. non kenn yàkkamtiwul dara. Mhm. waaye dañu gis doxalin wi rek. Mhm. benn ñaar gis nga du caagi ñii fi nekk tey opposition bala ñii ñoo nekkoon au pouvoir bala ñii ñoo nekk au pouvoir du càggin loolu rek ne nga naan dafa mel ni dañuy jàpp ne nit ñu bees na nañu déedéet ñun ñëpp ñun rek ñoo fi nekkoon xamante bu baax a baax euh, dafa am benn wax ñu naan gattax lu mu yàgg yàgg si biir géej. waaw du soppalekul jësig. soppalekul jësig jësig tam lu mu. waaw yàgg feneen tam. du nekk gattax pour mu nekkaat gattax day jafe mm-hmm. donc quelque part. encore que euh, nit moom wax dëgg yàlla il est malléable am na plasticité mm-hmm. mën na jàng mën na mm-hmm. kii ak yooyu waaye am nay fondamentaux yoo xam ne xamante nañ ci yenn yi waxtaan la réew mi laaj diisoo la réew mi laaj def nank la réew mi laaj xam xàmme bu baax li baax li ñu yor téye ko uuf ko sàmm ko foo lañ toll pour jéem a yootu leneen teg képp koo xam ne génn na ci loolu xamal na junga ci loolu nag la ñu woote mm-hmm. dañu ne ah mbir mi kat dañ ko doon mm-hmm. pencoo mm-hmm. dañ ko doon waxtaanee indi na figure bu bees boo xam ne dafa laaj ñu waxtaan nag nag dañ def suñu say say bu yaatu lan la nar a demee nan lañ nar def ci fan yi parce que day gaaw délai yi parce que dama gis ni élection comme ni nga ko waxee Sénégal yàgg na organiser élection euh, yàgg na am ay concertation Euh, ma même si bu mu nekk sax bu euh, du mu ni adversité même animosité yi métti su daan am nit ñi au moins ñu trouver consensus pour pour mën a pour mën a waxtaan. yéen à votre niveau est-ce que gis ngeen ci euh, ci les nouveaux tenants du pouvoir parce que ñoom du ñu ni effectivement sa ni nga ko waxee léegi ñoom changement systémique du ñuy wax. est-ce que c'est pas parce que ñoom ay nit bon du mën a du mun a ay nit ñu bees ñoom dafa am beneen gis-gin bu ñu gisee politique ba nga xam ni. Euh, moo fi nekkoon depuis les années 60 ba léegi moo tax ngeen am tiitaange wala wala euh, ñaaw njort ci seen euh, bëgg-bëgg ci seen war a waxtaan ak ñeneen ku jegi gis nga réew mënoo ko maanaam tëgg constitué sur la base de man man man nga dafa am loo xam ne moo ñuy boole ñun ñëpp dafa am loo xam ne moo ñu tënk mooy charte des mooy constitution dañu am ay loi tant que soppi wuñ ko yooyu ñoo ñu tënk dama munoo dem élection yu Sénégal fi mu nekk nii en l'état surtout élection yoo xam ne da anticiper. fekk ne toogoo waxtaan ak ñi ko war a sax. loolu c'est le bon sens qui le commande à moins que nga bëggee instaurer li ñu naan kaw loolu nag jàpp naa ne kenn bëggu ko ci réew mi donc waxtaan wi dafa am amul benn lu ñuy ragal ay appréhension mais dafa am yoon woo xam ne moom la ñu war a jaar fondamentalement léegi nag boo gisee leneen loo xam ne day niru leneen. nga teel a wax teel a yëgul. ku ne da ngeen di artu da ngeen di artu fi ngeen toll da ngeen artu. artu benn ñaar tam fagaru bu baax a baax ndax nag dañuy euh, sëx rek ñoo xam ne xaw ma nu ñuy waxee ci wolof manipulation dañ cee xaw a aay lool lool lool mën naa ci joxe junni firnde boo nekkee si loolu. nag manipulation ak politique ànduñu. déedéet euh, laaj bi nga laaj mën naa ko euh, maanaam wëlbati ne. est-ce que politique ponkam war na mën a nekk éthique maanaam ràññee lu baax ak li bon ne damay teg li baax pour man jàpp naa ne éthique maanaam ràññee lu baax ak lu bon xëccu pour lu baax bokk séppee ci politique politique boobu nekkatul politique lan mooy politique mooy tabax sa réew tabax boo xam ne da ko teg ci luubal teg ko ci wax loo xam ne da nga koy weddi teg teg ko ci loo xam ne gëmoo ko teg ko ci loo xam ne da ngay jëm a këf xel yi jaxase xel yi waaye dara nekkal lu ci dëgg teg ko ci naa am rek li nga xam ne moom laay yootu yoon bu ma jaar ba jot si sam aayoo politique boobu mënul jur loo xam ne day indil ngir ngir askan wi yëpp politique bi baax mooy bii dajale nit ñi bi gën a suuxat ak ak ak yelleef bi indi aafiya si ñëpp loolu nag da ngay bàyyi xel si ñëpp donc pour man jàpp ma ne manipulation wax dëgg yàlla war na nekk ressort li gis nga nag manipulation. Mm-hmm. mën na prospérer pendant quelque temps. Mm-hmm. mais du sori. mooy rek li ñuy wax si wolof. <laughs> diggante li ñuy dëgg ak li dul dëgg. am na loo xam ne mën na xëy de waaye pour mu xëy gont fanaan. dëgg mujj ba ba toujours. ah euh, euh, juste rek di fàttali na ñoo ngi am comme invité tey le professeur euh, Samba Sy de secrétaire général bu PIT. monsieur le secrétaire général du ñu ñëw ci question boo xam ne la mooy la question d'ordre économique. wax nga léegi euh, lu ñuy bund ay ñenn ñi les tenants du pouvoir ñoom du ñu reddition des comptes euh, du ñu bëgg saytu comme ni nga ko waxee la nga xam wax nga ni effectivement lu jaadu la euh, ñi yore woon réew mi nan nan nan nuñ ko yoree woon. ci loolu am na li nga dénoncé même la société civile sax dénoncé na ko ay nit ñi nga xam ne duñ leen pratiquement duñu dressé benn liste ni ñoom du ñu génn mais alors que le premier ministre jot na wax ni am na ñi xam ne jot nañu génn est-ce que pour fagaru moo tax. ñu dressé liste boobu d' autant que am na ay juristes aussi yu ni ñoom euh, lii euh, li ñuy def au niveau de l' aéroport le la la loi le permet est que ànd nga ak ñoom ci loolu. Euh, gis nga lu yenu maanaa ku ko dégg xam nga ko boo ma ne yow Samba si mii ndax lii ak lii moo tax nga teg ko si yoon waxuma rek nga taxaw wax ko mais nga teg ko si yoon ne lii lii yoon ne na lii nga xam ko yow da ngay xam boobu buñ la ma yëgalee wax la. yoon soxla la jaar fi mu war a jaar boo demee naan da ngay jël aéroport bala feneen la ci fekk loo ci góob da ko war a gar bu mott waaye yëgoo tino ci li ma dégg ñu ñooñ ne liste am na kenn xamul ko ci nekk ñu ne am na ñu def ba léegi kenn xamul lu ñu def sur cette base là ngay dal diw ak diw dama ne loolu day xaw a niiru arbitraire te arbitraire dafa baaxut tudd nga nag ay juriste gis nga li gën a bon ci intellectuel bu intellectuel buy waaf te du wax dëgg jàpp ne Euh, contingence moment yi rek ma war a déterminer li muy wax malheureusement malheureusement dañ ko seetlu bu baax a baax gis nga man lan moo ma chagriné lool métti ma lool dégguma suñuy intellectuels ñu wax ni ñu waroon a waxee bi métti yi nga xam ne xew na ci réew mi fii hmm. ma tudd ci rek fi nga xam ne foofu la ñu sàqu xam di ko fa tabax di ko fa togg mu gën ràññeeku ñu ne ko boyet ñi nga naan yenn intellectuels booy seet ñuy waxee noonu ñooy waxee rek ñu doon waxee dafa mel ni loolu yëngalu leen loolu boobu intellectuellement doyum par conséquent euh, yoon dañ ko war a topp mot reddition des comptes dafa war bu jaadul waaye nag réglement de compte li muy jaar mooy li muy jur mooy fayantu te nag gis nga dina Moustapha dina daal dara dara saxu fi de ak ah, gaaw dafa gaaw parce que. li nga wone mooy li ñiy ñëw au pouvoir ak ñi nekkoon fële parce que gis nañu aussi ñi nekkoon ci pouvoir bi passé ñu bare ñoom aussi duñ doon def lu leen neex ñu bare ci ñoom ba bokk na sax la tax ñu mere leen. ah def lu neex day. Euh, man xam nga boo xam ne noonu globalisé. dafa parce que xam nga toute globalisation est abusive. waaw est abusive effectivement parce que euh. du gisoon ni euh, li tax moo ko dañuy gisoon ni yàlla dafa def ni nguur gi passé amul kenn ka nga xam ne mi ngi ci nguur gi. Euh, am nu ñu malgré rapport yi fi amoon amul kenn ku kuñ ci kuñ kuñ ci arrêté wala ku ñu convoqué te dafa mel ni ñooñu daanaka nguur gi passé ñoom ñoom ñoom la nar a convoqué bi que xaw ma ko xamaguma liste bi est-ce que loolu euh, euh, warlu mën a tax nit ñi mën a am tuuti jiixi jaaxa si effectivement li ñu li ñu doon defee ba pare am raison yi war a mën a tax ñu mën a may nit ñi juste benn juste rek benn benn préjugé favorable sur li ñu bëgg a def Euh, préjugé favorable defe naa ne kenn du ko ñàkk am. parce que mm. préjugé favorable moo tax ñu falu ñoom. sur la base de promesses. Mm. et d' engagement. justement mais nag doxalin wi. bu fekkee ne dafa firi loolu nga xam ne moom la ñu waxoon. Mm-hmm. bu fekkee ne yow da doon ne yoon amul jaaruñu yoon nga commencé yow ne doo jaar yoon mm-hmm. parce que ñii jaaruñu woon yoon dama ne mm-hmm. day gën a jaxasoo. même bu fekkee ne am na ensuite ci reddition des comptes yi du ma sori en tout cas man géré na kenn mu suma woo ne ma defal ak yooyu xaw ma nag am na mbala amul mais am na du ñàkk xam naa parce que état dafa am na muy doxee xam nga état spectacle dafa am état spectacle mooy loo xam ne euh, dañ koy teg nii ci place bi ñu xam am na yeneen doxalin ci biir yoo yu gën a am est-ce que am na lu am am na lu amul defe naa ne bu ñu gënee xuus ci dundin wi dina feeñ mais dama ne yoon nañ ko doxal ba mot chasse aux sorcières jaaduwut reddition des comptes lu jaadu la fabrication de compte nag pour charger un adversaire ndax dafa gênant jàpp naa loolu jëmul kër Moustapha naka nga mën a jàppee nga ne man ñun ñii kat waruñu mën a nangu ci réew mi ñu nekk ñu am ñoo xam ne ñun ak ñoom ñooy xëccoo te ñoom am nañu alal boo xam ne boo moytuwul dañuy sonal moo ko doon wax ci tubaab mooy hmm. ay opposants yoo xam ne dañu am milliardaire hmm. waruñ ko nangu bu fekkee ne opposant milliard am yi def ko luubal jël li ñëpp moom am ko topp ko ba mu mot waaye bu dee dafa am xaalisam boo xam ne lew na ko mu ànd ak yow mu ñàkk ànd ak yow nangul ko mu nekk li mu nekk am déet ah, loolu moo jaadu loolu de moo jaadu mhm. waaye dañ dégg ne dañ ne déet donc déficit de lisibilité bi mhm. jaxase bi confusion bi moom moo ragallu mhm. encore une fois reddition des comptes ak réglement de compte dañ koy dégg compte compte waaye yàlla ak yàlla. yàlla ak yàlla euh, toujours sur la situation économique gis nañu ni euh, ñi jot ñi ñi fi nekk tey lu ñu yàgg ngañ ñi lu ñuy naan immigration clandestine def ay promesses yu bëri au au Sénégalais mais malgré cela ñëw nañu ci nguur gi gis nañu affaire dafa mel dafa gën a takkarnaasi euh, d' abord vous êtes un leader politique gis nga mbir mi du mu méttee ba bëggoon am sa sa gis-gis ci loolu ak yow loo yaakaar ni. lii phénomène bii am nan la ñu mën a def pour mu mën a dañ définitivement même su mënul dañ sax mu wàññeeku. en tant qu'être humain wax la sama sama sama déchirement. d'abord ay nit yu solu ba fees ay gaal yoo xam ne ay gaal yu ñu taf yëngal. ñu nekk ci ci anam surtout nag ñu nekk ay ndaw nga xam ne àddina mu ngi leen di ubbil ay loxoom ñu soobu ci géej par fournées entières di diig mm-hmm. nekk na lu doy waar kenn du ko politique kenn warul ci wax sànq nga nga frémir nga ragal ban lan moo war a dox si xolu xel wu ñuy def loolu seen xol bu dee am nañ ñu leen wër te yëg ko bàyyi leen ñu di ko def ba di leen di jox ay moyens ñu def ko ñooñu lan moo war a nekk seen naka nga war a xalaatee benn nit boo xam ne day jël njobootam jiital ko ne leen dem leen bala ànd ak ñoom ñaare ñu la jigéen bu boot doomam. Mm-hmm. boo xam ne laajul dara kenn ñaare ñu la gone goo xam ne mu ñaari ñun la kenn koo xam ne am na lu mu amoon fii dafa tëj magasin am jël nangama million def ko si. non ak même commandant kii bi sax moom dafa yor moom dafa yóbbaale ay jarabaatam ak ñaari ak ñaari doomam xam nga loolu la mun nit ñi mënul comprendre. ba nekk na nekk na lu xaw mu nekk nga xam ne aussi dafa amoon këram yore mbiram du dund normalement. nekk na lu jafe moo tax mm. gis nga war nañu gën a liggéey. si mm. ñu tëggee suñu bopp. Mm. si yar ak yeew d'abord alal lan lay jëriñ. dund ensuite alal <laughs> bu dee rek mooy sa horizon hmm. mën nañu ko ko jéem a yokk di ko yokk di ko yokk tout le temps du doy mukk waaye nag est-ce que mën nga fanaan ci juróomi kër en même temps est-ce que mën nga dawal fukki oto en même temps ci benn néeg sax benn lal ngay fanaan te lal bi ci ginnaaw lal bi ngay est-ce nga lekk fukki kilo ceeb hmm. et cetera donc doylu hmm. dafa nekk lu baax tëgg suñu njoboot si yenn yi dafa nekk lu baax xeex tam pour addina soppeeku parce que addina boo xam ne dañ ne léegi marchandise yi mën nañu circuler ak yooyu yooyu waaye nag nit ñi moom pour nga dem ak yooyu boo bokkee fenn ak yooyu loolu tam teguwul yoon mais en tout cas am na lu fi nekk loo xam ne lu diis la war nañ ci moo tax tam ni ma ko doon waxee sànq rek gis nga politique yenn yi dafa yomb euh, bu ñëwee kenn waru ko fooye parce que lu diis la war nañu gën a ubbi ay perspectives suñu réew. justement xëy bi war a gën a yokk. si biir réew mais lan la mën a war a mën a def pour mën a dimbali nit ñi ci loolu parce que. nit ñi xam nañ effectivement du rôle nguur rek xam ni nga ko waxee léegi c'est une question en partie de société mais ñi ñi yore réew mi aussi war nañu mën a teg ay jéego nga xam daañu mën a dimbali nit ñi ñu mën a xam fu ñuy jëm wala wala sensibiliser leen bu ñu mën a def yenn ñoom yow pour pour selon vous lan moo war a nekk euh, na réew pour njiitu njiitu réew yi pour phénomène bi mën a wàññeeku. tout première étape. mooy nga jàpp ne am na lii loo xam ne c'est des problèmes yoo xam ne war nañ ci am consensus mm. national maanaam déggoo ci rek. du questionner Samba si tey opposition la nekk rek mu ne li xëy amul fii li yaakaar damm ci réew mi ak jéego yi gaay sama gaa yi teg moo tax euh, yëf yi gën a tar ba waxee noonu déggoone lu metti la déggoone lu jaaduwul la déggoone lu warul la déggoo ku nekk si ñun dañ ci war a indi sa contribution euh, kiy jàngale kiy jiite ci bërëbu jullikaay yi Euh, kii nekk ci koñ bi euh, kii rawale euh, ñëpp ci ñu nekk ci penc yi ñu mën a waxtaan déggoo ku nekk indi am na yoo xam ne pété bi dañ ko war a xaw a fàtte ci wàll ndax au fond boo gisee ñuy xëccoo pour jiite réew mi dañu am réew waaye réew moo xam ne gone yee ñoo ngi daw naan dañuy sànko si géej géej yooyu dootoo jiite dara donc am na yoo xam ne war nañ ci mën a juboo waruñ ko fooye loolu defe naa kii jiite war na ko réaliser moom moo yor liit bi moo war a cëggal guy gi daal comme ni ñu koy waxee mhm. donc loolu bu ko defee mhm. léegi nag dafa laaj waxtaan parce que nag lu compliqué la du question ne gars yi amuñu fu ñu jàpp rek donc concertation du ah, la plus large mhm. la plus soutenue la plus inclusive la plus profonde possible pour ñu jéem a jàkkaarloo li nga xam ne c'est un euh, lenn li ci yéeme mooy day am koo xam ne moom am na lu muy jot am na lu mu am ñaare ñeneen ñi buñ ci jotoon dañu ne alhamdulilah bu baax a baax ñooñu bàyyi liñ fi am pour utile ensuite lan moo xew bitim réew moomu ñu ñuy xëccoo di fa dem est-ce que foofu yëpp dafa yomb. mirage la rek pour. <laughs> mirage donc am na liggéey boo xam ne war nañ ko def ñu ñëpp defandoo ko pour que en tout cas jéem xool euh, nan la ñuy génnee ci mbir mu tar woo. mais jërëjëf monsieur le secrétaire général. Euh, amoon nañu mbégte loolu recevoir la waaye balaa ñu lay balaa ñuy tàggatoo ñu jox la kàddu gi nga fekkee am na loo bëggoon wax xam ne jotuñu wax nga a wax ak sa militant ak sénégalais gërëm camarades yi nga xam ne ñoo ñoon ñoo nekk pour certains d'entre eux depuis plus de quarante ans de vie militante soutenue di def loo xam ne yombut jaar ci ay fànn yu bëree bari ba egg fii tey leen di sant leen di gërëm gërëm sant suñu Sénégal suñu mbokk compatriotes sénégalais yi Sénégal nekk na réew moo xam ne bu particulier la euh, du ma céder à la tentation di naan ñun ñoo gën ñëpp ak yëpp waaye am na lu fi yàlla def loo xam ne balaa ngay xam valeur am gërë ci dem feneen nga loolu lu ñu xëccoo xëccoo lu ñu bëgg a jiite jiite lu ñu am opposition am opposition suñu diggante nañu fexe ba sàmm ko c'est notre commun vouloir de vie commune mooy suñu urbanité mooy suñuy ponk diine ak suñuy caada defe naa loolu mën nañ koo sàmm téye ko bu baax a baax loolu moo ñuy may ñu am dëgër laay jërëjëf euh, yéen ñu doon seetaan ak duñu di suñu seetaan si bi euh, TV ak suñu plateforme yi ak du ñu déglu sur euh, Rewmi FM ñoo ngi am euh, mbégte di leen jox dig daje xam na euh, dimanche prochain à la même heure et puis ba di leen souhaiter bon gàmmu jërë jëf. ñu ni nee ñoo bokk réew mi ñu ni nee ñu ni nee naa nanu yaatal géew bi ñu ni nee ñu ni nee naa ñoo ñu ni nee ñu ni nee naa nanu yaatal géew ñu ni nee na wuute mënta ñàkk